noonu ngay def noonu ngay jullee <clears throat> xam nga nag julli ndooy am na ñu ko fonkul am ko fonkul ñoom seen yoon nekku ci am sax nit ñu dul julli ah am na kilifa yu dul julli maa la ko wax ay boroomi alal ay boroomi xam-xam ñu ñu wax ne boroomi xam-xam la man d'accorduma ci borom njàng lañ ku xam ragal waaye ku jàng ñeme ku xam ragal ku jàng ñeme suñu amoon xam-xam ragal du ñu julli dangay dem kër goo xam ne dimanche du dimanche ngay gis samedi juma bu ñu wàccee léegi samedi duñ liggéey ñu dérégler réveil bi di nelaw ba mi di jot ñu doog a yeewu dem ci wanag wi sangu soxna si sangu bon bi indi ndékki li ngeen lekk yaramu jàmbur ti ki ko bind jaamuwu leen ko tegu leen ko fenn yow jëkkër tegoo ko fenn jabar waxaali wu ma ko monter réveil bi mu yee a quatre heures nga jóg wàcc maa ngeeg ñoo xam ne ndóoy duñ yeewu quatre kii ci la bokk ak ka ca yeewu quatre heures jéem a jàpp naan dañuy julli jamais man kay maa fay man man kay maa leen di yee téléphone man maa leen di yee te ci yoon danga war a yeewu quatre boo yeewoo quatre nga waaj wala cinq heures bokk waaye koo xam ne doo yeewu quatre doo yeewu cinq heures doo def dara da ngay nelaw ba bët set ngay doog a julli suba adduna wanaa noonu te da ngay xam ne sa bàmmeel yow rek a fay wéet kenn du la gunge kenn du la wéttale li yàlla moom nga sàgganee ko ti bu la Iran ne kar téléphone nga naaw bàyyi suba bàyyi lépp ñëw wuy si Iran lam la sant nga def ko na ko bëggee yàlla ne aci ñëw hayya ala salaati nga ne damaa sonn damaa taayal damay nelaw ba yeewu wa isa xaamu ila salaati xaamu kusaala bu julli jotee nga taayal yow dangay ngay fontu rek da ngay fontu rek waaw bu la sëriñ bi sante ñu nodd ba ko fa dem julli sa way jur bu la sante bàyyi ko fa dem julli ñëw yeggali ah. ay topp sëriñ bi naan waaw sëriñ bi laa génnee mu leen di ziar maa ngi moomay ànd léegi la ma lëng bu la ëppee loxo bu la lëngee sa mbagg mi day damm léegi la ma sëriñ bi lëng léegi la ma rëkk léegi la may mbéj loolu yëfu xaleel la nit dina tollu ci responsabilité foo xam ne ree sax du ko yomb parce que yii ne ci bopp bi koy poñe ba du talaree waaw nit dina toll ci responsabilité foo xam ne caaxaan du ko yomb antu du ko yomb parce que li ci bopp bi moo tax waaye dara boo wutee xaalis daal boo ñëwee nelaw boo wutee gel boo ñëwee nelaw soo amee dara daraja boo ñëwee nelaw yooyu nooy yoree yoree alal yow saali ñu di la protocole ngay joxe ay cent et quelques millions yow Saalum wala milliards joxe ay lu ne nga joxe te sa jëbi du laa suuf loolu c'est c'est catastrophique yow li la yàlla sant doo ko def nga nekk ci li nit bëgg loolu erreur la man sama alal kay bu ma jaamul yàlla kenn du ma ko lekkal kenn duma ko lekkal kenn duma ko lekkale maa koy lekk su ma dee buñ may duma ñu duma ma mais dajale sama alali tappale jox la nga lekk ko bu ëllëgee ñu duma la pour naan du ko def dee leen julli yéen borom alali kilifa yi dee leen julli dee leen yeewu fajar di julli yee seen njaboot yi ñuy julli wa'mur ahlaka bi salaati wastabir aleyha yaa nee na dee leen jóg julli ti ngeen yee seen njaboot ñu julli ay ca suba ci waxtu allah طبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع Le groupe des médias se rapproche davantage des Sénégalais. Partageons notre passion. Vous êtes témoin d'un événement Filmez grâce à votre téléphone portable et partagé à travers Sen TV et Zik FM. Le numéro WhatsApp des médias 77 639 42 48 77 639 42 48. saa boo leen fekkee xew-xew bu doy waar filmer leen ko wala ngen bind ko yónnee ko ci whatsapp bu Sen TV wala Zik FM ñu wesaare ko numéro whatsapp bu D-Média 42 48 wu nekk nag dinañu neexal kenn ci ñi yónnee ay vidéo yi xibaar ci jaamu yittey askan wi ñu laaj góor gi. sallallahu alayhi ne ko waaw. lu tax nga gën ñooy yaru. mu ne adabani rabbi fa ahsana ta'dibi yéen nit leen yar te man yàllaa ma yar te yàlla yar muy gën a yaru ki nit yar ndax yàlla moom moom yar kon bu la yaree dara lu des nit moomul yar la mu am rek lay def ci yow dégg naa sax góor gu baax nekk ca ñaseen